waaw ginnaaw bi ñu sante sunu boroom euh, ci lim ñu may ñu fekkee ba euh, yegsi si bés bi nga xam ne acteur politique yi dëgg la ñu ngi ko doon xaar mais réew mi yëpp a ko doon xaar moo tax jàpp nañ ne boo ñaanee sa boroom mu may la euh, boo gisee ne may na la da koy sant ndax boo ko santee moom moo ne dana la dolli kon lii ñuy dugg jàpp nañ ne mbiru àdduna la jàpp nañ ne ci coalition Benno Bokk Yaakaar réew mi ñoo ko bokk bu jongante jotee ku nekk dafa war a jongante mais mu yem ci jongante rek ndax bu jongante bi wéyee dañu war a jàppante ku nekk loxo tabax réew mi nga xam ne ñoo ko bokk. moo tax coalition benn Bokk Yaakaar bu Sicap Liberté jàpp ne balaa muy def dara dina euh, delloo sant boromam ñu jàpp ne nag loolu dañ koy defee ci bërëb ya nga xam ne euh, fa la diine gi di manifesté woo moo xam ci église yi moo xam ci jumaa yi donc. Euh, Euh, imaamu si commune bi yëpp imaamu Sicap Liberté yëpp dinañ daje xaar ñu déjà wàcceel nañ ñu kaamin ñu ngi ñuy xaar aussi pour ñaanal ñu ñu mën a tàmbali door liggéey bi kon loolu sant yàlla la beneen bi ñuy sante yàlla également wala boog di ko ñaan mooy élection yi ñu dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabbil alamin mais surtout ñaan mu am jàmm ñu ñëpp ñu bañ a def élection boo xam ne day nekk xëccoo day nekk ñiiroo day nekk ŋaayoo ndax suñu kilifa yi ne Benno Bokk Yaakaar te nga xam ne président Macky Sall moo nekk ca bopp ba lam ñu sant mooy na ngeen dem ci jàmm bu leen bundaxataal kenn bu leen provoqué kenn mais surtout li ñuy xaar ci yéen mooy ngeen wàcc ci askan bi wax leen seen bébét wax leen seen programme wax leen lan ngeen leen namm la def loolu nag ay weer ci ginnaaw ñi ngi ci nekk Euh, looloo ñu permettre ñu xam soxla askan wi lan la xam fan la mbir mi di metti lan la ñu soxla lan lañuy xaar ci seen équipe municipale ak seen maire loolu yëpp tënk nañ ko ci juróomi ponk yoo xam ne fii ak campagne bi di mat fukki fan ak ñeent ji danañ ci wax ak askan bi euh, jël ci seeni préoccupation mais lépp ñun jël nañ engagement ne dinañ ko def ci dal dinañ ko def ci jàmm te duñu tooñ kenn ku ñu tooñ it baal nañ la ndax jàpp nañ ne réew mi benn bopp la ñun ñoo ko bokk jongante moom na nekk ci mbañ gàcce bi wala mu nekk ci xalaat waaye ñun jongante wu ñu jongante doole jongante wu jongante soxante ndax santu loolu te xamuñu loolu li ci des nag mooy rek ñaan yàlla que le meilleur gagne comme niñ koy waxee ndax jogante la il faut être fair play waaye fii ci Sicap Liberté moom la meilleur kenn rek la mooy benn bokk yaakaar. Sicap Liberté ban étape bi ci topp yeneen étape bi ci topp sax laay wax. ñu waaw yeneen étape yi ci topp yëpp loolu lay doon ndax dinañu wër commune bi yëpp 1 ba Liberté 6 extension Baraka dem ci camp bi également fu nekk équipe yi dinañ fa wàcc wax lan mooy programme bi wax lan la ñu namm def euh, dinañ aussi ànd ak ndax jamono yii ñu mi ñu waroon fekk ñu ànd ak suñu candidat tête de liste de la ville de Dakar le ministre Ablaye Diouf Sarr waaye tàmbalee ñaan moom tradition la lu baax la moo tax ñu ñaan bu ñu ñaan na ba pare danañ dem rejoindre équipe bu mag bi su ko defee nag ñu wéyal programme bi ak ñoom mais wéyal ko aussi ci commune bi ndax ñun yàlla dafa dogal benn Bokk Yaakaar ñaar fukk sur ñaar fukk 20 sur 20 am nañ suñu 19 candidats de commune am nañu suñu candidat de ville te ñun ñëpp dañu lëkkaloo doon benn say ànd di xàccandoor di dóorandoor xaaruñu ñëpp ñu ngi ñu doon xaar ci liste yi ñu tasaaroo tasaaroo ñu gis nañ ñi tasaaroo ci tasaaroo moom ñii dem nañ sud ñii dem nañu nord ñii dem nañ ku ne dem na fa nga xam mais ñun ñi nga xam ne ñooy boroom ndakaaru te Ablaye jub Sarr jiite ndakaaru ñun ñi ngi fi ndakaaru toog ak waa ndakaar xam seeni soxla fas yéene ko faj nag ci anam bu ne loolu nag fii ba ñuy dëgmal fukki fan ak ñeent ji dinañ leen won daal ne affaire bi Benno Bokk Yaakaar.